Golden Oriental Africa fii si biir America ñu ngi leen fi amal seasoning ak lépp loo leen nama biir Gambia diwtiir ak bagage si ndekki yi ngeen soxla Canned Beef African Oriental Store andil na leen ko si seen xefi bot yi ba tey it amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitig bi nga xam ne lépp loo leen soxla mu ngi si biir amal nañ leen maalo leket tame inde Adi cuuraay waye faté wuñ suñ goor yi nga xamné ni den télé sen sey african oriental store indi na len garab go xamné ni dina len délo sen kàttan ba tay ñu ngi len amal abaya, dal abaya bo munti xalaat bu jigen ñu ko fi am waye faté wuñ goor ñi amal nañ len xaftaan ñi amal nañ toban cuuraay african oriental store nak bagage yi ni fep fo nek ci bir canada bi ak us di ko mëna am am té ñu ngi len amal shipping african oriental store africa si Amerika. fii si Everett Washington njaaxare jeex na suñ waxee suñ mbokki christian yi surtout am um, good friday wala easter friday ah, doon na loo xam ne Gambia bi yëpp a ko dee celebrate du christian du muslim ñun yëpp a ko dee celebrate so we are out here today ah, pour ma am ak waxtaan su um, ñëwee wàllu maam um, easter friday ah, ñu gën koo xamee naan bi tey nag maa ngi fi Kanifing Estate guidé naka la dee demee seen préparation si ak ñoom tamit ah, luñ dee faral di def ah, su ñëwee wàllum ah, good friday wala soo toppalee ñu rek waxtaan ak suñu mbokki christian yi jërë ngeen waxee ñu ngi nii fii Kanifing Estate te fekk naa tey suñu sista bu rafet bii nii ah, mu ngi tooga sa tur bi. Tabita. Ah, Tabita Sey. Tabita Sey. Sey. Ah, Tabita today how do you um, how how how are you um, seeing your good life? Well, it's nice just spending it um, with the family. As you can see, But in Nambu, right now, you get toga and like you know gis naa nandul bi nice na te neex na tamit naka ngeen ko faral di celebrate yéen naka leen ko faral di celebrate how do you normally celebrate it oh, okay mm, every year dañ dee defar nandur rek xam nga joxe jox neighbors yi because we are all one ak yooyu noonu jox family members yi dañ ñu toog ñu lekka waxtaan ak yooyu noonu Like that's it just simple mm-hmm. Nothing special. So, uh, what do you make of today's nambu? What do you make of today's nambu? Yeah. Is it the plain one or is your? having? It's just a plain one because sun mama timam luñu jangal. You mm-hmm. don't need ay cocoa, I banana or essence or anything. Mm-hmm. Just normal uh, buy bi mm-hmm. ak around araw defen that's it like just normal one this year at last year naka nga gisee different due to the covid well last year fuck na moo because family members yi ñu ngi woon around after like ñu ngi defoon lu bari tamit I think the celebration was more than this year Because this year maire bi nekkul i am na ñoo xam ne so it's just us rek so I think last year moo gënoon a tane this year Because we have, nga léegi nekkul ñëpp la ñoo because of covid 19 so what does it remind you? What memories are they job? suma mama Timon. may her soul rest in peace. moom moo the far defar you yooyu noonu so boom, mu a lot changed, daal a lot change. Mm, so tey gis nañ ne yaa ngi tooga maa ngi gis ay couscous you know. <laughs> very soon I, I, I, ay vegetables. yeah that's it am I invited. <laughs> yeah you you are invited you and your team. Mm-hmm. you guys are invited. okay thank you. you're welcome. thank you. you're welcome. Wow, Finally. uh, yes, uh, we are still um, in Carnifing Estate and we are now with um, a brother. Uh, your name is Imran. Imran Jai. Imran Jai. Yes. Um, Imran, how do you celebrate uh, Good Friday? Actually, as you have seen, we just make Nanburu. We give it out to neighbors. We just share family members and then after that, we cook lunch. And after the lunch, well, normally it's a day that you're not supposed to go out. You should be careful. So a, on a day like today, we are not even allowed to Really? Yes. But then we still do it because, as you can see nowadays, tradition is fading out the bracket. Yeah, in tradition we used to do before. We are supposed to cook in the would have been like fish anything but not meat or chicken. You feel as if you are, yeah, because no, uh, our Savior died on the day, on today, today. Yeah, so it's like you see what Savior, we are eating his flesh. Understand? So that's the reason why we're not allowed meat, only fish. And then again, it reminds me of my grandma. I so just a wonderful woman. Yeah. Because I remember, when I was small, I used to be very happy on a day like today because non-rural, you know, non-rural, enough non-rural. Akoleke. Yeah, Akoleke and all that, yeah. So I thank God for this actually. And I pray we Mipekekwa actually Barek Barek, with good health, you boga jekanyo, and jekanyo boga Amen. Wow. So, uh, Nakangade Falabi celebrate this day, you know, and also what is the difference between this year and last year? Yeah, uh, there's a big difference because last year we had a lot of this year. Because even last year, we normally used to go for Christmas carols on When we went, some people, they always asking us, why are we doing around for the night like that? So this year we couldn't make much, just for us here and a few members. So uh, we've seen a lot of times um, Christians would make land and then food and give to their friends and families tradition or is this something that is um, acts of the Christians or what? No, it's, it's more like tradition. Uh, and then also again, I could say it's acts of Christians because we are supposed to love our neighbors as we love ourselves. Right. Yes. So um, this day, this day itself, the man who revealed, what does it remind you? What memories do you? Like I said earlier, my grandma. Mm. Yes, my grandma. She was a special woman. She was very special. She was great, loved by so many. May I also rest in peace. It reminds me of her and her, and her own. So what's going to be your final words? My final words are going to be, like I said, pray for us to see many, many, many more and good health. Thank you. How are you? I'm fine. Are you excited? I'm very excited. What is your name? My name is Exido Nyabo. <laughs> Exido, how do you celebrate the Good Friday? Um, I bring uh, all of my families together to celebrate um, the Good Friday. Mm -hmm. And we used to cook some foods for all of us to come together and eat. Mm -hmm. We celebrate, we dance, yeah. Can you dance? Yes. Okay, give us some little fish dance or little dance moves. Okay. Yeah. okay. Hey, hey, hey, hey. Stop. Hey, hey, hey. hey. Oh. Yes. Okay, you can do. That was amazing. So what, what, what are you going to do today, the whole day? Because we know that the day is just starting. Well, I will. Look at the camera. Well, I will eat and I will dance mm. and I will celebrate a good fight. So what does this day remind you? This day reminds me of the of my father in Nigeria. Mm. I miss him. So just Say hi to Daddy. Hi, Daddy. All right, thank you. Hey. Hello. Hi. What is your name? My name is Excel Oniabo. Adam Chinobi. Ah. Yes. Are you guys twins? Yes, we are twins. Amazing. So, how do you celebrate your birthday? Um, my mother makes a big feast for my whole family, and then we come together on, on our dining table and eat and we laugh and talk to each other. That is why I like good Sunday. So, um, how do you celebrate your, you know, Good Friday? Do you go to church today? Um, yes, I, I go to church on good Sundays. Um, so, what can you tell us about today? Today, today we are going to make we're going to make fried rice and chicken and then we'll eat it together. Am I invited? Yes, you are. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Wa assalamu alaikum auntie. Tur bi. Lan bu la eh, eh. Maa ngi tudda Michelle. Michelle Diop. Diop. ah Michel ñëw nañ te ñu fekk la fii nii yéen a ah, ngeen dee bugg di faral di celebrate seen Good Friday. waaw Good Friday bi xam nga yéen a ngi ñëw sax ngeen tase ak ñun ñu ngi ñëw ñu ngi just door a jógee church stations of the cross suñ jógee si suba dañ dee njëkkaa dem am prayer si church bi 8 o'clock ba ba 9 ñu jógee foofu noonu ñëpp si ñëw jeekal di fekk suba teel dog nañ start nañ suñ naan buuru bi. waaye dinañ ko dog ñu dem church eight o'clock suñ dellisee ñu jekkali liggéey bi waati ba twelve fati ñu dawati delluwaati si church bi dem ami stations of the cross ñu dellusiwaat si yi nga fu mu nekk nii ñu ngi séedaale suñ séedaale yi ba pare six o'clock ñu dawati delluwaati demaati church tey moom whole day bi dem church ñu dem church ñoo rek waaw ah, lu tax ñu ne Good Friday eh, Good Friday moo nekk bés bi Yeesu Krista génne àdduna bés bi mu jébalee boppam ndax muusal doomi aaduna yi moo tax ñu ko ooyee ajuma ju sell ji ajuma ju baax ji di ko bu deyutoon bési tey bi la ni de ni te ñun fii ne duñu doon di duñu doon muusal yi soo fii ndigeef ñu muusal bési tey bii nii moo tax ñu ooyee ko Good Friday li ajuma bu sell la ah dañ dee faral di gis ne da di defar ay naan buur yu bëree bëri bëri a ngeen jox ko seen dëkkandoor yi seen bokk christian si even muslim si sa dañ dee am Ah, lu tax loolu is it a tradition. waaw tradition la man dama juddu ma fekk ko fii nii waaye tradition boo xam ne la daal pour séedoo cofeel la ngir liggéey naan buuru liggéey boo xam ne la saxool nga ko dee liggéey nekkul loo xam ne danga dee jóg rek nga def ko léegi nii rek nga pare déedéet dafa dee jëlee nay two weeks buy bi rek ci boppam danga war a toog di ko di ko taana nga génnee yu xonxa yi nekk foofu noonu. ba pare dee bi ci boppam xëj na léegi la sax ñu ngi tayal ba nga xam ne duñ dee woon waaye naan mburu bi soo ko arawee ba nga pare nga suusal ko ba mu ñor danga ko war a dugalaate ci ginnaaw nga wol ko ba mu def benn dànka nga doo koo dugal ci biir ndox nga commencé na di ko dog benn benn soo liggéey boo xam ne la ci xol nga ko dee jëlee soo dañ ko dee séedoo ngir séedoo cofeel xam nga mbugeel ndi yaakaar naa ne soo joxee nit lekka rek séedoo nga moom bés boobu noonu ndik te fekkee ne sax mu tombee koo xam ne da nga tasee moom ci mbedd bi rek amut lu mu sax nga jox ko ko rek at fiit nga ko bul bés boobu noonu won nga ko cofeel won nga ko loof bés boobu noonu hmm. ah dañ gis na tamit ah, nit yi ñu dee defaree naan buuru ak ah, dafa uti am na ñoo xam ne dañ dee bëgg a naan buuru kese du am fruit du am dara ah, man suma maas nag dañ dee bëgg euh, naan buuru boo xam ne dafa am ay bagages yëpp ay am fruits banana ak pomme yéen naka ngeen di defaree seen bos. waaw xam nga soo déggee ñu ne naan buuru hmm. dafa am na naka nga koo defaree. dafa mel ni ki comme si si Bible suñ ne on living bread bi naan buuru bi yooyu yëpp du ko daan di am waru ko am li mu war a am rek moo ne ko sukuur buy la ak maalo. xam nga nit yee dee bugg rafetal rek moo tax ñuy def i rosé ñi i kooko ak i essence yëpp foofu noonu waaye ñiy defat naan buuru sa cosaan loolu yëpp amul ko woon. buy la maalo ak sukkur jeex na takk loolu mooy naan wóoru bi loolu mooy cosaan bi li si des nag nga bugg koo def foofu noonu rek xëj na nga def ko foofu noonu waaye bokk si ah bés bi di gis ne nit ñu ne da ngeen dee um, keep everything cool yi ah, dama bëgg nga explain ah, lu waral loolu waaw li ko waral moo nekk tey si ñun suñ dunda ñun ci dundi dundi kercen bi tey bési or la tey bés bu maaga la so bés boo xam ne la di nga gis ne su génnee ci taal naan buuru bi añ sa ñun eh, tooguñ ko duñ tooga dara because doo am jotam sax imaginal 8 o'clock yaa ngi si cooj bi nga ñëw 9 o'clock 12 nga dellu si cooj bi nga ñëw 6 o'clock nga delluwaa xam nga doo am time pour loolu noonu loolu moo tax even naan buuru bi sax pour xat-xatal ko foofu noonu defar ko xam ne cosaan la te tey lañ ko war a joxe loolu moo tax waaye ñu bari sax because dem ñëw dem ñëw bi am na ñoo xam ne sax duñ ko dee defar bési tey bi bés bu xooli la daal soo bés boo xam ne la ñun dafa diis si ñun christian si bés bu diis la pour ñun waaw so um, gis nañ ne tamit comme célébration si dañ ute due to covid 19 ah, naka lañ leen affecté waaw affecté nañu because di gis ne comme suñ daan defar naan buru dañoo defar lu bari ñu jël ko ñu séedale ko yëpp waaye fi mu ne nii dañ ko limite ba nga xam ne comme ñun fii nii si suñ dëkkandoor yi rek lañ ko lañ ko émale because dëkkandoor yi mu ñu leen a ñaaka jox te xamante nañ fii nii ñun ñëpp a fii nekka loolu noonu moo tax si dëkkandoor yi rek lañ ko émale fii nii defuñ ko daal mu yaatu comme niñ ko dee ibee nga defar lu bari because covid bi xam nga ni ni mu demee foog nga jël sa time naka nga koo defaree kan moo koo séddaale ak yooyu noonu yëpp xam nga dafa dafa laaj set daal loolu moo tax waaw soo loolu moo tax dañ limite lu nekk pour covid bi nii ibiwuñ ko pour mu ibeeku comme ni mu daan ibeeku waaye dañ def foog naa gox bu nekk daal ku si nekk soo defee nga jox sa dëkkandoor yi rek mu em ndax xale itam buñ tasaaroo torop xam nga otherwise xale yi ngaa use pour ñu dem dina séedaaleel te soo defaree lu bari dangaa niid xale yu bari ñuy dem na di dugga ci këri jàmbur yi di génn di dugga di génn moo tax ñu limite ko emale ko ci dëkkandoor yi rek soo luy nekk sa kàddu bu mujjee bi sa mbokki christian si sa mbokki gambien si kon nga xam nañ ne good friday lañ nekk naa di di ñaanal ñëpp rek yàlla may ñu ñu am good friday bu bu sell la eh, duga ci saturday bu sell la di holi saturday bi te eewu on sunday am christa am ista boo xam ne daal yàlla dinañu ko barkeel te ñun ñëpp di ñaan daal ñu xam ne covid bi ñëw nii good friday la rek betrayal la woon boo xam ne am na waaye ñu séntu ne yàlla dina ñu may ista boo xam ne te ista bu mu ñoo may mooy ne dinañu génneel covid bii nii ci àdduna si ba ñun ñëpp toog di ko bànneexoo di ko xajaanee buñ em rek ne ñu ngi ci covid ñu ci covid ñu ñaan rek ñi nga xam ne daal moom am nañ ci coono bu bari yal na leen ko yàlla oyofal waaye nañ séntu rek ne seen ista tamit mu ci yoon bi te yàlla ista boobu dina ko def Covid bii nii dina ko génne ci àdduna bi. amiin mm. jërëjëf Ba. thank you jërëjëf Ba. waaw rek ñu ngi ñu ngi fii nii Estate dem nañ si kër yu bëri bëri te ba léegi nag ñu ngi si round bi tey nag maa ngi fii ne ak sister bu nice ma bàyyi ko rek moom tam mu wax gën ana keta balfa ana yote naka naka nga farazi celebrate wala naka nga farazi celebrate sa istabite ana ah, nu ñu defar naan buuru naan ci naan buuru bi suñ dem church ñu gërëm yàlla parce que tey tey Um, eh, eh, dee si poids bi ngir gàcce bi ah good friday bi nag bu dee defar defar di defar new is just tradition la tradition la boo xamante ne dañoo jël suñ maalo bi yóbbu ko si machine bi ñu wol karaw ko ubbuy taana ko defar naan bu rafet ñu séedoo ko suñ dëkkandoo loolu lu baax la ñu ngi wone ne ñu ñëpp benn lañ regardless of our religious belief we are all one dañ ko dee séeroo si sëriñ yi dañ ko dee séeroo si buur nekk ah tey nag moom bi si corona lañ nekk tay si tayi corona lañ nekk ñu ngi gërëm borom bi fekkee nañ ko am na ñoo xamante ne fekke wuñ ko dee nañ dem nañ jiitu nañu so ñu ngi ñaan yàlla suuf sedda seen kaw ñoom ñu ñaanal ñu ci bés bu nekk nii ndax bépp bàkkaar bu ñu de day Krista bii nii yàlla baalal ñu so yow su ñu waxee Good yan memories la la dee bring old memories. ah su ma ko su fi nekkoon ndeysaan ndam si yàlla si Good Friday su jotee suñ defaree naamburu man ak moom man ak dem bu seedoo dañ dee dem ba Banjul Banjul Potu fu ci kombo bi ñu distribué naan loolu. loolu rek laa na si naan bi mu bii nii su ma ko su na continuer maag moom di neen di demaat round so ah, gis nañ ne sa papa nekk bi but still the same thing is continuing yes lu waral loolu ah mooy li ma waxoon lu ma waxoon si pikitin bi rek culture tradition buñ fekka suñuy la dañ judd fekka suñu maam tam ñu continuer ko ñu seedoo rek gis nañ ne tamit comme ñeneen ñi su ñoo defar naan bu def dee def ay fruit you know ay um, apple banana ay loolu yéen seen bés daf dee nekk plate ah traditionally naan boobu buy la sungufu maalo sukur ak maybe essence pour flavor yenn ñuy fa aar yëpp maybe generation bii la upcoming generation xam we like to spice things up but you ne def traditional namburu loolu rek is very simple maalo sukur gis nañ the tamit nit yi ñu ne suñu waxee Good Friday or Easter Sunday uh, the nekk labor having its whole So what can you tell us about the significance of Indeed, uh, mo mangi wax ci first statement bi ne mooy bés bu Yeesu Krista deewoo si dee si croix bi Good Friday then on the third day si resurrected from the dead Easter Sunday ko celebrate Good Friday Saturday ak Sunday Saturday Easter Sunday dem mass dem mass pare Sunday dem mass resurrection of our Lord Jesus Christ why actually in, uh, in, Catholic history or in biblical in um, terms, uh, it started from the Passion, uh, Palm Sunday. My Jesus, Jesus triumphantly entered into Jerusalem mooy soosoor Sunday My mooy dimanche soosoor foofu la dee Then dañu dem ci Monday bi ñu am mass Tuesday ñu am praising mass Wednesday ñu am confession Thursday is the mooy institution of the Eucharist mooy the Lord's Supper on Thursday Friday nag My Good Friday My best bu Yesu Krista Saturday Sunday Yesu Krista mu dekkale so this suma gis-gis ah am a Christian faith the uh, the day that Christ died and the day that the that Christ resurrected mo amee suñu the resurrection of Christ Christmas tamit important na Why Easter moo important we are an Alleluia Easter people and Alleluia is our song so we believe so much in Easter so what's going to be your final words to your fellow Christians and even Muslims out there watching. ah we continue bennoo bi rek oneness bi rek. ñu continuer ñu continuer oneness bi share we continue to live in harmony in peace.

waaw ba tey rek moo koy ah, ñu ngi fii ba ah, Kanifing Estate comme luñ leen ko nekk di leen indiwee ah, dem nañ si kër yu bari waxtaan nañ gaay ñoom tam wax nañu significance Good Friday lan la maa ngi fii ñëw naa si benn salon fekk fi sister bu nice yow mi nga tudda man maa Godwin waaye shop bi ñu ko tuddee Stella Marie beauty salon and tailoring moom laa tuddee boutique bi. ah Stella tey nag ñëw nañ ñu gis la fii nii ah, te xam nañ ne tey Good Friday la yow loo fi def. Ah, fu mu nekk nii kay ñu ngi xaar client yi pour ñu ñëw pour ñu mën a def suñu liggéey bi dañ dee mostly dañ dee ñaw ak léegi waaye fu mu nekk nii Christmas bi moo dee gën a dox daan Easter bi mm-hmm. waaye ba léegi ñu ngi toog fii nii di so yow loo ñu mën a wax si Good Friday naka ngeen ko dee celebrate with the family and friends. ok Good Friday bi nuñ ko dee defee because dafa nekk comme day Yesu Krista nekkut comme bànnee léegi luñ nekk di def dañ di defar naan buuru séddoo ko ak suñ mbokk yi ñun ñu bànneexu si because day am bi nekk na day boo xam mm-hmm. ne tamit dekkale ko bi pour def nit yi pour ñu ñu free from sin mm-hmm. ak tamit ñun ñëpp ñu nekk. si jam loolu hmm. la gis comme good friday so yooyu naka nga di distribuer sa nan buru bi nan buru bi dañ ko dee defar séedoo ko ak suñu mbokki sëriñ yi ak christian yi ñun ñëpp ak négoci dañ dee séedale naan mburu wa ñu nekk christian ñëpp a am hmm. bo amu tanantu ñun ñëpp benn lañ hmm. So know this the previous years and this year, you know, how many COVID is still around. So you're not to make a situation. ah at bi moom sant nañ si yàlla because last year demuñu woon church amuñu woon good friday nekkuñu woon si nit yi léegi ni niñ ko nekk di defee ñëpp ngi nekkoon indoors waaye at bi nii at least yàlla def nañu or ko ba mu jeex ñu def naan mburu bi séddoo ko nit yi kontaan nañ si loolu noonu nu ko yàlla defee. seen naan mburu yore ngeen defar is um, uh, moo ko ah bi nekkut wàllum diine because dañ juddu fekk naan buuru bi ñit yaa ngi ko dewa comme seedoo nii balaa ngay dem di jënd ay yenn xaalis di joxe xaalis boobu defa baax na nga defal loo xam nit ki dina ko dina kontaan man loolu laa ko gisee nekkut si yoon bi ne by force danga ko si yoon bi la nekk. soo yow naka nga dee defaree naan buuru am na ñoo xam ne ñoo ñu seen ay mixed fruits. banana ak pomme waaye am na ñoo xam ne they prefer you being plain. ah man suma bos bi plain because bëgguma pour mu foro ak yooyu noonu man plain man bi laa dee defar dem yow sooy lekka nga def fa loo fa bëgg a yokka pour mu mun a yàgga tamit waaye man suma bos bi plain man bi laa ko dee defar. so uh, suñu waxee Good Friday ak Easter um, Sunday. Uh, what are some of the memories that uh, Danko Demuna Fateleku maybe young danga ko dee celebrate with people waaye ñeneen ñi am na ñoo xam ne tukki nañ am na ñoo xam ne gaañu nañ so yan all memories la ah, good friday bi pour man moom suma bos bi man time boobu suma demee church dañ daan mun a ñëpp ñu nekka together kontaan waaye léegi fu mu nekk nii ñu bëri tukki nañu ñeneen ñi gaañu nañ because of corona bi ba pare still now ñu ngi try tam pour social distance bi pare saturday ak comme duñ ko daan woy or bi duñ daan woy duñ ko daan woy de def ñuy woy woy yépp pour samedi bi ak dimanche So um, normally they said when you when you say Easter, uh, well, Good Friday, mm -hmm. it's um, a holy thing. So you're yeah. not going to get Uh, du ngeen mentionatu bi holy ngeen jaamu seen borom bi waaye luñ miin si holy bi pour def lu baax anga am na yenn jikko yoo dee def daan boo nekku di or su waxtu or bi jotee yu bari yi nga xam ne or na la ne dang dee def loolu dang dee wax ne yii nii dama koo bàyyi ba or bi jeex te teg waruta nekka tamit or bi kese dañ war tra ñun tamit as youth comme ni ñu nekkee ni ñu mun a xam tamit lu baax ak lu bon bu ñu xaar ba ñu yàlla wax ne weer bi pour lii la balaa ngay change soo loolu moo tax ñu tuddee ko Holy soo defee lu bon tamit su waxtu or jotee boobu moom war ngaa xam ne yëpp lu baax rek nga war def ba loolu jee moo tax ñu tuddee ko Holy Week. so yow sa final advice to sa moromi Christians yi ak impact muslims because gis nañ ne tam yaa ngi liggéey ak muslim yaa ngi dëkk ak muslims ok man lu ma bëgg a final wax moo nekk ne comme nit ki bu toog xaar ne because of or bi moo tax nga war a xoli wala nga war a def lu baax pour ñu jàpp ko ñu continuer ko pour loolu mun a nekk suñ jikko si suñu boppa bu ñu xaar comme nit yu mag yi wax ñu ne def leen nii nga mun a def loolu noonu yow tam nga try comme nuñ ko waxee ñu tamit ñu try study loolu ñu mun a def tamit lu baax lu gaay loolu waaw baax na jërëjëf thank thank you waaw ba tey rek mbokk yi ah, comme liñ ko waxee ah, ba ñu ngi Kanifing Estate nag ah, am nañ fi suñu sista bu baax waaye suñu sista bi nag moom du christian moom muslim la te suñu waxee good friday wala am easter du muslim du christian ñëpp ko dee celebrate so ma bàyyi ko rek moom moom tamit mu nuyu askan bi naka nga tudd Ah, ndey tey ñu ñëw ñu fekkal la fi yow ak sa boss ah, koo xam ne moom Christian la moom celebrate Good Friday ah, yow tam naka nga naka nga mën ka di ko celebrate. ah ana ma jàppale ngeen celebrate ak gaay parce que Good Friday muslim ak Christian la ko <laughs> nice nañ la. jërëjëf dinaa ñëw nga leetal ma. baax na waaw baax na soo nga di bëgg celebrate sa Easter bi.

mun naa may seen mbokki christian wala seen dëkkandoo yi. waaw loolu boo am na parce que korité dañoo yëkkalaate. ñoom comme ñoom tam ñun ñu lay yëkkal ñu leen di yëkkalee yaay. so luy nekk sa final word. ah xanaa muslim yi ak christian yi nekk benn. Mm-hmm. ñu góorgóorlu. jërëjëf jërëjëf. waaw ba tey rek mbokk yi ah, ñu ngi fii nii ah, biir Kanifing Estate comme li ngeen ko waxee rek ah, si njëlbeen bi ba tey rek si wàllum Good Friday lañ nekk te xam nañ ne Good Friday nekk na loo xam ne suñ waxee Good Friday ñëpp a ko dee célébrer du Christian du Muslims ñëpp a dee ñoo together ñu célébrer Good Friday. te nag ba léegi ñu ngi fii nii si kër yi koo xam ne yaay la si ñeneen yi maam la si ñeneen yi anti la si ñeneen yi waaye dinañ ko. ko bàyyi rek mu introduce boppam mu wax ni moom mooy kan ah, balaa ñoo start ah, waxtaan bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. maam tur bi. maam tur bi Baby Cruz. ah Baby Cruz. waaw. maam gi ñëw nañ fi ñu fekkala fii the whole family is here ah, yéen a ngi celebrate Good Friday mhm. so yéen naka ngeen dee faral di celebrate Good Friday. Good Friday bi de moom ni ñu koy celebrate parce que nañ ko di celebrate ñu defal naan waaw waaye foofu. ñu dem church suba dinañu am 12 o'clock mass waaw boobu la ñoo station of the cross waaw dem na am evening mass bi tamit ci ngoon waaye naan buuru bi nag li mu fekkale ci dëkk bi foog ñu defar naan buuru pour tasaare nit ñi meññ ñi mooy sarax yi moo génnee Jesus waaw a is it a tradition walla uh, a comme in bi moo ko wax pour ngeen faral di ko def wala ci suñu diina lañ ko fekk te tradition la ko ñu def ko waaw mu te def nandu passage joxe ku nekk waaw what's the significance of Good Friday pour ñeneen ñi ñoo xam ñu ngi seetaan xamul ak xale ñoo xam ñu ngi te xamul the meaning of Good Friday ak Easter Sunday uh, Good Friday bi mooy bi Jesus Day waaw moo tax ñuy defar naan nguuru bii nii waaw comme ñu defar ko pour Friday bi comme ñu defar naan nguuru pour tasaare ko jox nit ñi ñu lekk gis nga Sunday bi nag moom dañoo dem mass dañoo am Saturday mass ci guddi leneen Sunday bi mooy fiis bi tamit ñëppay solu sanse dem church waaw Ah, dañ de faral di gis na suñu waxee Good Friday mbokk yi dañ lay ñëw fu nekk ñu toog ñu ay lekka naan naan mburu lekka lekka yu neex ah, ñu feeca waaye dañ gis ne ah, this year it's um, kind of different due to the covid 19 yéen coronavirus naka la leen affecte su ñëwee seen fis ñu ñëwee suñu fis ah na ñu bare nag parce que ñu bare nañ daan ñu ngi bugg a defar depuis last year man defaruma woon sax parce que xam nga boy defar ak fièvre bi nga bëgg a ko jot ci def ko ragal jël ñu bari du ñuy nango jël understand nga moo tax man son mo way dis year ah mané fokk foog ma baaxanta rek def touti rek jox suma néego si ni ma leen ko daan joxé waaw ñu bu Friday bi ay fièvre bi sonal na doom adam bi ci àdduna si sonal na trop torop torop la ñoo bëgg def duñ ko mëna def waaw waaye Good Friday nak mom tey suba jangi jangi 12 o'clock pour station bi jaam yi moon waaw moom lañ koy def si sa commencé moom la ñoo def nee yi den fekk yow suba si defal nga sa naanguru jox nga sa néegu si ñu lekk mumbaay bi nag moom samedi ak dimanche la ci nga pati ngeen enjoy yeen famille bi soo leen amee comptine ngeen dajee togg seen i mbaxal def lu leen neex ngeen lekk naan moom la joolaay nag bu bugga nañ baxal de so ñu ngi ah, la seetaan xam naa ñeneen ñi dañoo ñëw pour ñu lekk mbaxal ah, so de wala ci ëpp yëpp nag mbaxal yi nag mbaxal yi yàppi mbaam lañ dee togga mm-hmm. waaw di nga togga nag lu neex mm-hmm. defar sa néeg defar sa kéeg sa snacks yëpp ku ñëw nga saaf ko ku la ndokkeel si tamit nga saaf ko mm-hmm. waaw noonu la Ah, dañ dee faral di gis ne nekkul seen mbokki christian si rek a dee ñëw mbokki sëriñ yëpp ah, muslim si tam dañ dee ñëw wala dañ da ngeen dee am spécial toogal loolu dee defal ñoom tamit pour ñoom tamit waaw foog parce que yow ñun gourmet bi mhm. soo defaree mbaam doo ko jox sa mhm. foog nga togg sa ganaar nga defar assiette ba mu rafet mhm. nga jox say dëkkandoo waaw parce que baa ñu fii gourmet ak sëriñ yëpp benn la waaw ñun ñëpp benn la tey soo demee fi nga man maa ngi laaj ci sëriñ ki lee nga laal ci sëriñ ki lee laal ci gurmet bi moo tax duñ duñ duñ duñ a ngin xaajoo ñoom waaw ñëpp a benn bi la benn yàlla bi doom moom lañoo ñoo toppa waaw des na ci ni ñu koy jàmmoo waaw waaye benn yàlla bi dong moo am suñu waxee naan buuru am na ñu dee defar naan buuru def fa coco def fa raisin def fa apple waaye ñeneen itam di write it in the plain way. loolu tradition la wala lan la. Ah, ñun liñ ñu xamuñu woon kooko xamuñu woon raisin xamuñu woon essence ak yooyu. Hmm. ñu naan buuru bi buy bi rek maalo bi ak sukur si rek la waaw parce que yële soo ko ca defee bu naaj su fekkee taay tàngaay bi la daf dee fuur yàqu baat mu dog ñu cee def i meew ak yu kenn xamul. waaye liñ xam ci cosaan bi mooy maalo bi sukkur si ak buy bi rek la jeex na waaw man noonu laa dee defaree naan boobu waaw ñun loolu lañ fekk suñ kër yi loolu lañ fekk léegi jamaanoo ëlbateku ñu def li fii tubaab waaw nga bugg a dekkal ba mu rafet xëy na yaa ngi bugg a yekkal sa njëkke yaa ngi bugg a yekkal sa borom nga jagar ba mu rafet rafet ba yëf yi ñu ëpp a yàqu la loolu moo fi nekk na waaw waaye naan lu plénu kese ay mën nañ dee waa yéen euh, a ñu na ko déggandoor ah ba rek ah ñu ngi si waxtaan bi ah ñu bàyyi rek nga jox ñu wéy yoo xam ne dangeen ko daan wéy xam nga dangeen dangeen ko daan fiir ngeen fecca ngeen fàttalekul yu bari xam nga soo loolu lañ bugga wéy nag day mu bokk tuuti rek soo ñu cabaxaree sa baax na ah waaw. Ndeye Ba Mbow de mu waaw xanaa mun nañoo naa leen ñaanal. Mm-hmm. ci li ngeen taxaw nii. Mm-hmm. yal na leen ci yàlla taxawal. musal leen ci seytaan mm-hmm. ak mbañ. yàlla may leen ni leen a daaxee. mu yomb ci yéen ngeen am ko. waaw. mun ngeen ñaanal bu baax a baax ku ci am jëkkër tamit. yàlla may la jëkkër ku ci amul jabar yàlla may la jabar bu baax te ñemen mun toog a bàyyi tëkka wee hmm. waaw moom bàyyi tëkka wee bàyyi benn tëkka wee waaw te mu ngo tëkka wee rek su ma leen nañ defuti di tëkka wee yooyu rek lañ fi nekk bañ leen ko te wàññi jimbo bi mm-hmm. ak maji yee ajaa yee takki mu ngee rey nit ñi waaw bañ leen ko dellu leen ci ci nit bu njëkk ba mm-hmm. xorom lañ amoon loolu yaa laaj poobar loolu rek lañ xamoon ci ci bu njëkk ba nga mariner ak vinaigre jeex na waaye jimbo bee tag bee Adja Fatoumata ak Binte yëpp ñu ngi jaxasoo moo tax feebar bi ne mus ci dëkk bi diabetes baa ngi rey nit ñi pression baa ngi sonnal nit ñi waaw maa ngi leen a ñaanal yàlla rek dénk naa leen nag ndey ju sedd ji dénk leen ci sos ñu tax tey ñëpp a jóg mu saytu leen waaw bu ngeen leen ci jàmm ba seen liggéey sotti. Ah balaa ñu laa bàyyi rek yow yén mémoire si yéen nga daan am wala. time bii nii ban memory nga am boo xam ne danga wax ne ah daaw defoon naa ko wala ah ten years ago I was doing this te defaatuma ko te gis nañ ne tamit am na ñoo xam ne sa mbokk yoo xam ne sa nga gaay feet bi waaye euh, yàlla jël na yàlla jël na am na ñoo xam ne ñu ngi feebar am na ñoo xam ne tukki nañ so yéen loolu yan fàttaliku la la jox kañ man fàttaliku na ma lu bari tey nit su ma rakk ji réewoon daaw daawati ji waaw moom jiyaat sa doon liggéey moo doon head of library foofu noonu taal bi maa man yenn saa duma def dara moom muy daw daaxee li quoi waaw bu nekk laa def waaye ah jamono wéccee man kenn la léegi may daw xale yu ndaw fii ñoo ma jàppale parce mënatuma mag laa léegi waaw waaw ah, waaye sant naa yàlla am naa fi ñaan ñett ñu may jàppale waaw ci kër gi man leen a ñaanal doole gi ñu am bay dama jàppale yal na leen ci yàlla taxaw loolu mooy yëpp soo amee euh, mag sagana kon nag euh, sa taxawaay dina bari trop waaw soo kon nag mbokk yi yéen a ko dégg euh, ba tey rek ñu bàyyi leen ñu demaat seeti keneen hmm. ba beneen yoon waaw ba rek ñu ngi leen amal xale bu jàng bu nice bu cute black beauty bu shine bu ngeen shine ah you look beautiful thank you so much naka nga tudda Marie Catherine Gissé Marie Catherine Gissé ah Marie yow tey naka nga faral wala naka nga waajal di celebrate sa oh maa ngi koy celebrate very well and I'm so happy that ne we made it fekkee nañ ko ak jaama en maa ngi ñaan si yàlla def ne ñu fekk ko yeneen at yu bëri bëri that's what I pray to God. we understand come as we say good Friday as Easter Sunday. uh, is something like uh, it's, it's, it's a holy thing. So your we Kimdawi Nilaneka this year and probably they're planning on going for clubbing and also what is going to be your advice to them? Mm, my advice is all about that name. We sit down and pray to God that name. You fake about attribute and and we're that. So that's my advice to them. Because clubbing B is not part of me come like we have to celebrate our Good Friday. We have to pray to God through everything gonna be alright. To our families and friends, I think Lord Monica the right thing we should do. So uh, you're some kind of work, you going to work at university and maybe you have a lot of watching. Why are you doing that? it the fake and go and jama ñaan ci yàlla ñu fekkewaati ko ak jaama si yeneen at si yeneen at yu thank you. You look beautiful. Thank you. Nice, Thank you. Welcome.

ñëw si kër yu bëri may ñu naan bëri wax ne tamit ah, pour Friday dafa nekk ah, loo xam ne ah, ñoom suñ ko célébré ñoo nekk ñoom it ne dafa dafa ko dee célébré celebrate with their neighbors their friends and families so lii la ñu amaloon tey ci biir Kanifing Estate Gambian Talents